Le Khalif Cheikh Mahi Ibrahim Niass a procédé ce vendredi 7 juillet 2023 à l'inauguration à Sébikotane de sa nouvelle résidence en compagnie de l'entrepreneur par ailleurs Moukhadam Cheikh euh, Baye Mamour Insa Diop, chargé de l'exécution des travaux. S'en est suivi ce samedi juillet la visite de courtoisie du président Macky Sall au Khalif Cheikh Mahi Ibrahim Niass. Invité de l'émission Jury du dimanche sur euh, la RFM, Souleymane Ndéné Ndiaye, ancien premier ministre sous Wade, à estimé que Ousmane Sonko devrait bénéficier des même faveurs que Khalifa Sall et Karim Wade afin de participer à l'élection présidentielle de 2024. il faut laisser tout le monde participer à cette élection je dis tout le monde Ousmane Sonko Karim Wade Khalifa Sall à un moment donné de l'histoire de notre pays il faut savoir pardonner je ne vois pas pourquoi on amnistierait Khalifa Sall et Karim Wade et on laisserait de côté Ousmane Sonko à mon avis ce serait injuste c'est ma position à déclaré Souleymane Ndéné En perspective de l'élection présidentielle de 2024, le leader de PASTEF Ousmane Sonko sera investi ce samedi 15 juillet 2023 d'après un communiqué élu par la RFM. Lors d'un entretien accordé à France 24, Ousmane Sonko, même si le doute plane sur sa candidature avec euh, deux condamnations à six mois de prison avec sursis sur l'affaire l'opposant à Mame Mbaye Niang et à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse sur l'affaire l'opposant à Adji Sarr a affirmé qu'il est éligible à cette élection. Bloqué chez depuis plus d'un mois, reste à savoir si Ousmane Sonko sera présent à cette cérémonie d'investiture ou pas. En Afrique, la 63e édition de la conférence des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est achevé en fin de journée du dimanche 9 juillet. Le président du Nigeria, Ahmad Bola Tinubu, a été élu à l'unanimité à euh, la présidence de l'organisation. Parmi ses priorités à la tête de la CEDEAO, il euh, entend combattre les changements anticonstitutionnels. Fin du suspense au Gabon. Le président Ali Bongo sera bien candidat à l'élection présidentielle du 26 août prochain. Le président sortant l'a annoncé dimanche 9 juillet lors d'un déplacement en Coque, près de Libreville, la capitale. Il y briguera ainsi un troisième mandat, la constitution gabonaise ne prévoyant pas la limitation des mandats présidentiels. Ali Bongo, 64 ans, dont 14 ans passés au pouvoir, sera adoubé par son parti lors d'un congrès extraordinaire ce lundi 10 juillet dans la capitale gabonaise. Nous terminons par le sport. La Fédération sénégalaise de football a annoncé ce lundi que le Sénégal va jouer un match amical contre l'Algérie le 12 septembre 2023 à 19h GMT au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention.